Ah non, non. Tout va bien Comment vas-tu Julien Ça Bien rentré Ouais, ça va. Ça va, Bien Ça se À plus tard. À plus tard. L'international Pape Gay. L'international Non, non, non. Tout va bien Comment vas-tu Ça va, Julien Ça va et toi Gangziam. Tu es rentré Ouais, ça va. Ça va, Gangziam. Tout se passe bien. Hamdou. Salut. Kali, Kali. À plus tard. À plus tard. wziął mu... A Monia sobie... Voilà. Bah non, on passe là maintenant, c'est comme chez toi. Quand tu veux, comme tu veux. Maintenant, félicitations. Merci. Si l'on est. maa ngi si jàmm. ça va ça va. joué wu la ñu nga xool li gars yi joué nga wax nga jàngat ko. artisanat dina champion d'Afrique. champion d'Afrique. kii c'est ma sister. quand même non quand même. bu laa doon léegi je fais. ah c'est bon ah c'est bon. mu ah, ngi noonu Pape Ousmane Sakho ngeen gis nekk footballkat boo xam ne Simba am taxawaay boo xam ne ci équipe nationale Sénégal bu am ah, ko ngeen gis noonu di noonu danoo mer ba futt nak ndax li nga xam ne mooy waa fédération ni nu doxee ñoom da nga xam ne daanaka danoo toog di leen xaar lu mat ni waxtoog nangam mënunoo fexe ba génn journaliste yi wax ak ñoom moo tax mer nan journaliste yaa ngoogu mer nan ña nga noonu daw gaa danoo mer l'équipe a été euh, dans le même rythme, au même tempo. Et voilà, on a pris, euh, on a pris le devant très tôt, on a pris en première période. Et voilà, donc on a gardé, on a gardé le score et ça s'est passé. Euh, le contenu exactement, vous l'avez marqué. Qu'est-ce que ça a fait ah, J'attendais ce but depuis, euh, depuis des années. Hein. Alors, euh, là, j'ai ressenti, euh, ça c'est la passion, c'est le, voilà, marquer avec le Sénégal, c'est un rêve pour moi. Euh, on a vu aussi le public vous applaudir, on dirait qu'ils sont euh, pris comme un des siens. Ah, euh, on, on joue tous pour eux. Et euh, voilà, on est content la victoire, voilà, c'est pour le peuple. Et pour le match de On va partir sur le même, sur le même euh, tempo d'aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher, la victoire, les trois points Bamba Taax yi nga xam ne jóge na ba Thiès bi bëgg na ñëw interview looy wax ci télé mais waxal Thiès tuuti rek mais waxal looy waa léegi looy waxaat Thiès Bamba Taax yi nga xam ne jóge na ba Thiès bi bëgg na ñëw interview looy wax ci télé mais waxal Thiès tuuti rek mais waxal looy waa léegi looy waxaat Thiès ah c'est difficile mer ñoom ñëpp a ngoog gone Seneweb bu a ngoog gone RTS yi journaliste yi ñoom ñëpp a mer fu mu toll nii waaw kon léegi conférence de presse du am dara du am geraw fi am geraw fi am journaliste danoo geraw danoo geraw gisoo télé yu mag yaa ngoog ñoom ñëpp kenn ku ci yaa ngay génn di daw parce que li nu gis xamuñu ko Cheikh jaan Diagne bu RFM rajo Futurs Médias ma ngay wax ah, ci lu jëm ci li nga xam ne mooy gedd gi nga xam ne ah, journaliste yi gedd nañ ko ndax wax dëgg yàlla lu yenu maanaa la parce que boobaak léegi ñu ngi toog di xaar ba nu noo gis kenn comme journaliste yi ah, geraw nan Cheikh Tidiane joxe na moo door bi kon jeex na tàkk gaa yaa ngay ñibbi gaa yaa ñibbi sort na tout le monde sort gars yi nee na ñëpp génn. gars yi nee na ñëpp génn. ñii préparé match war nañu Babacar Fall ngeen gis ko noonu moom mi ngi ci gars yi Babacar Fall bu RFM